électoral la jeunesse sénégalaise est là. am xam nga ne am ko mat. booy fonk fonkal lam. discipline fi nekk bari nanu waaye lu fi mën a dajale lii. lamb dong ko. lii laay def ci géej di waajal drapeau chef de l' mbokk yi ko fàtte. drapeau chef de l' semaine prochaine la. ma ngay amee ca fa la champion yi daan génn. waaw ca la ñu jëm. 10 11 12. fa la ca Mbuur. le drapeau chef de l'État. 14 régions. Balla Gaye moom kese. Tapha Tine kese. waaye man seen. eh ma. Balla Gaye 2. mi ngi noonu di ñëw. l'enfant de Malifara. l'enfant de Guédiawaye. le fils de Doublès. mi ngi le tombeur de Bac le tombeur de Boy le tombeur de Kolifay le tombeur de Ousmane Diop le tombeur de Issa le tombeur de Mbaye le tombeur de Tafa le tombeur de Modou le tombeur de Baboy le tombeur de Tyson le tombeur de Yekini le tombeur de Gris kooku mi ngi noonu waaye muy daje ak bawol bawol bi tafatin kooku moo daan Boy Niang moo daan Yékini Junior ñaari yoon moo daan Zoss moo daan Gouye Gui moo daan Bombardier moo daan Elton moo daan Cek daan Abdou Diouf daan Boy Sey daan El Hadj daan Talla daan Sakadior daan Malaw Seras Tapha Tine la Bawol Bawol mbokk yi eh ñëw leen Balla Balla Gaye 2 Tapha Tine borom saakande ci takk waaye tey muy jàkkaarloo ak Balla Gaye 2 le phénomène Balla Gaye 2 Tapha Tine le les yeux dans les yeux ña ngay nappante <laughs> Tapha Tine Balla Gaye 2 oh leen Malick Malick kay lii këtu la la sagaayaay waaw Balla sagaayaay Eumeu Sène ñëw na wax ak moom ne la ko mag yow far ñëw na ci Tapha la ko yaagoog Merci Homo pour fair play. Merci Homo Sen. C'est ça la lutte. Malick Thiandou. Ce sont des yi ñu ngi ñaan eh, eh Massa Massa Massa Massa. waa jàpp ci jàpp ngi sant yàlla bu baax. président Bira lii c'est jeunesse sénégalaise lii c'est le discipline bi gën a populaire au Sénégal Malick Thiandou waaw Tapha a ngi sa wet waaw waaw a ngi sama wet cey laaj bu jëkk bi laaj ko Moustapha Tine Baye Ndiaye ngi nii taxaw adduna yëpp a ngi nuy xool ñu xool ñoom ñaar seen bis mu war a doon bis bu rëy lan la Tapha Tine ci bis bi bisimilah Tapha Tine dafa jàkkaarloo woon ak Balla il y a de cela onze ans mu ni woon Balla Gaye ci taqrib tafatin ni Balla Gaye ci niin bat Balla ni ko ay ton care keroog ba ñu dajee ki nga xam ne mooy Balla Gaye jël ndam ci moom onze ans après ñu war a dajawaat tafatin nga dem Abidjan nekk ci loxo Eric Favre say entraîneur wax nañu wax nga waaye tey Balla a ngi nii yaa ngi nii combat bi ban importance la am ban Tapha la ñu war a gis la 31 juillet ci kanamu Balla Gaye waaw salaamaaleykum maa ngi nuyoo képp ne ci mbooloo mi. micro bi micro bi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku ne ci stade bi. di nuyu coach su David accompagné ma depuis Abidjan ba fi di nuyu aussi papa ak Elas ak staff football mbooloo yëpp. di nuyu monsieur Eric Fawo aussi nga xam ne ci ay loxoom laa newoon di noyu waa Abidjan yëpp di nuyu képp ku teew ci stade bi delloo tey di nuyu Père Bakay di nuyu Assis Ndiaye Baye Ndiaye eh, ma ñëw dama doon noyoo wala nag nga nekk nga ci loxo Eric nekk ci loxo entraîneur yu xarañ ñu gis la nga dugg ci biir ndox ñu gis la ngay entraîné lu metti nga am loo wax jëmale ko ci Balla Gaye tey Balla Gaye ngi nii yaa ngi nii jàkkaarloo nga ak moom loo koy wax loo koy promettre le jour J. waaw Malick liggéey bi moom entraînement la rek du leneen dañ doon entraîné man jëm naa li ñu doon entraîné du pour moom pour ñeneen ñeneen la mais pas pour moom affaire bi loolu la sport la sport la ay sportif la ñu dañu entraîné voilà loolu la ko amul leneen am nañu combat contre bala gay nag dañu yaan yàlla yàlla may ndam si kawam incha allahu rabi. da nga moom ni ko dinaa la dóor bëggee bëgg a dee loolu ci suuf nga ko wax ñii dañoo bëgg nga wax ak moom lu mel ni midi parce que li nga wax ci suuf laa bëgg mu jëm ca kaw. Malick comme la ma doon wax rek foofu laa nekk ba léegi kii samay wax ak moom du bëri liggéey naa liggéey naa li mënoo xaar loo bañ mu yegg si bu ko jàppal bés ñëw. moom mu ngi entraîné maa ngi entraîné la suuf si dinañ xam dara incha allahu rabi. ayca El Hadj Bekkaay. mbokk yi dégg nañu kàddu yi Moustapha Tine Balla Gaye li sa ay supporter bëgg a dégg ndax dinañu gis Balla ba jëkkoon a bëre ak Tapha Tine wala du ñu gis Balla Gaye boobu ndax Balla dina dugal loxoom fa mu dugaloon loxoom ba am ndam wala déet. bismillahi rahmaani seetaan rajim bismillahi rahmaani ma sant yàlla julli si yonent bi salaay salaam sant suma sëriñ sëriñ Basiru Baara di ñaan yàlla jàmm ci réew mi di félicité ñi nga xam ne jot nañoo bari di nuyu amateur yëpp di nuyu képp nga xam ne teew na fi ay supporteru Balla Gaye numéro 2 di nuyu Baye Ndiaye mi tëgg làmb ji di nuyu Alou Burax di nuyu ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoo ngi nekk ba ca Paris ku ci mel ni Moussa Fall ak Vince ma leen nuyu bu baax a baax di nuyu suma adversaire Tapha Tine dina wax euh, vraiment euh, li ñu fi mooy contrat ci lima ma nekk rek laa nekk Tapha Tine laa amal combat di ñaan yàlla yàlla ma ndam ci ko nit ñi dañoo bëgg a xam say supporter nee nanu est-ce que dinañu gis Balla Gaye ba jëkkoon a bëri ak tafaatin walla déet parce que ñoom nee nanu danoo nam victoire. incha allah bu neexee yàlla man samay supporters xam nañ ma man caaxaanewu ma bis bi ndax xam naa fu ñu toll ci man kii bu waxee ne fi mu taxaw la taxaw ba léegi mooy dama koy duma daan ko que fi mu taxaw la taxaw parce que bii paas dama koy duma daan kon dama koy dama koy duma daan dara mënu dox sama diggante ak moom ma duuma ko daan loolu la am na nga Tapha Tine duma la daan la loolu la Balla Gaye wax das war a diis déggoo angale da ngay wax olof mi nga wax. this ngay wan a bis. this guy you light man. maa ngi dégg shut up man bu dee may fan day. shut up man ma bro shut up. shut up man ok. xam nga wax boo ko déglu da ngay noppi bu nee na mooy duma moom. anyway moom moom nii la mel naturel ñëpp xam nañ ko ko. Eh, nii lay mel de amul wax de. yow yow yow yow. amul yow xool ma booy wax nga yow yow yow ba kañ. calmement moo gën nga yow yow ini ini maa ngi nii nga saral nga yërëm tolu moo ci bokk yam nga wut ay ndimbal moo ci bokk yam affaire bi amul yërëm tolu doo duma daan la mu ngi taxaw muy. yow doo duma kenn man maa ko duma daan ko. yow yow même nga ngi ma taxaw yow. fii yow maa la duma. fii yaa ko duma daan ko mais maa la duma yow. fii la maa la duma. booy ñaa fii la la duma. maa la duma yow maa la duma. bombardier fii yow maa la duma. yow yaa duma ñëw ñëw mais yow la duma. doo la waaw. dama la jóg. stress ngay génne stress. stress ngay génne. amoo ki nga amee SRS ngay génn. amoo ki nga amee. barki Serigne Souma Mbacke SRS ngay génn. you do not sit up. you do not bro. yeah yeah. that's what I think. le 21 juillet. mooy jour mooy jour combat bi. xam waaye dina am yeneen jàkkaarloo yeneen promotion merci Albourakh ça c'est beau grand combat. Malick jërëjëf Sathiès grand grand combat grand combat grand combat grand combat ay ca grand combat Eumeu Sène Sa Thiès grand combat Eumeu Sène